Ah, jërë ngeen jëf mbokk yi ah, ginnaaw giñ li nuyoo jaajëfal leen ku ne ca turam ak santam mbégte la ñuy am saa su ne di jàkkaarloog yéen ah, fi nga xam ne mooy si te trois bi télé bu baax bi jamono bi ñuy wax ak yéen jàppale ne ñoo ngi Ziguinchor rawatina fi nga xam ne moo di Néma coole fi juddu booba tey gis ngeen ko moo di ay ndaw yoo xam ne ñoom ñoo taxaw maanaam fi nga xam ne Ousmane Sonko foofu la dëkkee ñu barricade ko ba kenn nu fee jaar mu am équipe bu nuit am maanaam équipe bu soir si ñooñee tey la ñu fas yéene ñëw ànd ak ñoom def ak ñoom maanaam li nga xam ne moo di waxtaan bi ginnaw gi nga xamne le leader du passef def na ben émission fe nga xamne mo ci wal Walfadjri ñew di sante ndaw ñi nga xamne ñom ñofi nek fi di len sante bu baax baax mais aussi di wax xalé yi nga xamne ñom ñofi nek sen engagement ak sen détermination bi nga xamne mom la ñoom si lolé xamna né dañ leen di dektal kàddu gi jox leen ko ñomit ñu génné sen xalaat ci li nga xamne mo di discours bi nga xamne Ousmane Sonko mom la def demb euh, fay nañ la euh, masque bi ñang na rek. waaw gis nga bilaay <laughs> fagaru dañuy fagaru rek. waaw lu waral li ah gaa yi comme que léegi rek bu ñu jëlee sa kanam bi rek su booy njëw jël si la rek loolu moo tax léegi baa ñu def lii rek ñu kàgguleew rek. yow depuis quand yaa ngi fi. man léegi mot une semaine ah. Hmm. man waaw fii laay fanaan depuis dimanche. Hmm. dimanche vingt heures laa fi egg si. maa eh, bi fu métti na wala. métti na métti mais métti na méttiwul. waaw parce que jaral nañ ko euh, projet bu mu bu porté wu la jaral nañ ko. mën nañ fanaan sa fii ba un mois deux mois loolu jaral nañ ko waaw. projet boobu lan moo leen ci gën a gën a neex ba ngeen décider sacrifier wu di fanaan seen kër suñu àdduna moo fa nekk suñu suba moo fa nekk waaw bëgg nañ bu ñuy dox suba wala wala suñu doom yi bu ñuy dox ñu mën a sigi xool seen morom ñoo xamante ne ñu ngi si beneen dëkk ñoom lu ñu am ñun tamit bëgg nañ ko am daal. comme maanaam ma jël exemple France France lu nekk France ñu bëgg nañu am lu raw loolu nag suñu doom yi am lu raw loolu waaw si wàllu éducation kaaraange si lu santé lépp daal waaw te projet bi daal ëmb lépp. doon def euh, appel euh, keneen ndaw ñi ki ngeen di xeexal doonatul doomu Casamance rek euh, man li ma leen di wax mooy ñi ñëw jàpp si combat bi ñëw jàpp ci combat parce que du combat bi du du combat Casamance. Euh, de combat parce que man man man Casamance Sénégal la bok kon man may may may lancer ben message bu bu fort si ñoo xamante ne ñoom dañu yaakaar ni Casamance bokk Sénégal Casamance Sénégal la bok suñu drapeau moy vert jaune rouge étoile vert mu nekk ci couleur jaune ñun bobu lañu gëm ñun Sénégal la bok bokk waaw Ousmane Sonko dëgg Sénégal Casamance le dëkk mais doomu Sénégal yépp la tey bu nekké président 2024 incha euh ñëpp ci bénéficier waaw parce que man man man concernant man man lu man ma bëgg Ousmane Sonko euh, si ci am la ma démon benen mit mit miti moom ma suivre ko dëgg lu muy wax oh, ba léegi si mom ma jël sama temps ma def ay recherche si mom seetaan ko voilà mané man ki moy sama nit kii moy am musuma am na leader Ousmane Sonko moy sama premier sama premier leader parce que man politique talu waaw léegi dem mu def benn sortie sortie boobu noo leen ko gisee. Euh, man man man mom ni ma ko narul dem narul dem uyu narul dem uyu na toog mu dem uyu mu dem fenn waaw man loolu laa gëm. discours bi moom rafet na jëlee nañ jëlee nañ si lu bëri euh, mais man moom demoom bu mu wax noonu ak condition yi mu wax man mom gëw wóolu wóoluwuma parce que gis nañu état bi day wax lu te du def lu bëri da koy da wax bu pare du def duka ko respecté kon mën na ne da koy respecté waaw ñu yóbbu ko Dakar Dakar moy loolu ñu dem jëlee ko foofu kii te man moom na toog fi comme que am fi fii ken mënu ko jëlee fi parce que ñun ñu ngi fi, na fi. fii. moom ay conditions la joxe bu kon buñ ko assurer les sécurité mi tout nee na pare na pour dem. waaw condition état mën na ko ne waaw nañ ko respecté ba pare ñu ñew ñu jalgati ko ñu galgal ko loolu yàgg na fi am Macky Sall wax na fi deux mandats lay def du romb du romb du passé deux mandats mais anamu muy bëgg a ñetteel kon wax moom du du ñàkk mun nañu wax ba bañ ñu bañ ko respecté man moom man man zone crois pas na toog fii. léegi yéen a fi bakkañ exactement. ba ba jour bu muy jeex rek ba jour bu muy jeex waaw. maanaam.

nga xamantene ne yow lu metti metti rek mom jaral na la lu ne Macky Sall ci rew mu ko bëgg yow amul ñu mu jaral lu ne ba tay Macky Sall jot ci rew mi kon ñun tamit bu ñu amee suñu leader mu jaral ñu lu ne ba mu ba mu bëgg nañ bu mu tay lu mu doon ko tam doon ko man bu ñu Sénégal jamm mo fi am na bu sañon mu rafetal comme ñun ñëpp ñeneen ñi def mu def ko jamm am fépp mais xaj seen bi amul benen jariñ histoire amul benen jariñ nit da ngay bay lu gën a rafet si Sénégal da yëkkati nañ ko yëkkati nañ ko jox ko oto yu gën a rafet yëkkati nañ ko jox ko cër bu nga xamante ne Sénégal lu baax la yëkkati nañ ko jox ko te tey nag xam nañu carrément mooy suñu kilifa ñun ñëpp nangul nañ ko ko ba mu yàlla bu ko yàlla defee bopp ñu mu neex ñoo mu naqaruñu actuellement mooy président bu Sénégal kenn mënu ko bañ mais moom it il faut mu tëddee njaaxaanaay na bàyyi te li ñu gën a metti mooy ñun ñu ñuy xeexal ñoo bokk réew mi suñuy frère lañu suñuy nijaay lañu suñuy ànd jàmmi lañu ku suñ kuñ kuñ si dóor bal nga dee boo xëyee yow muy gendarme wala ngay policier yaay dem jàll ci kër googu noonu ñun ñëpp benn lañu bu ñu sañoon loolu du am ñu seen i frère lañu nañu xam ne seen i frère lañu ñun xuloo ñoom ñoom bugg ñu histoire ak ñoom seetaane nag fi mu toll nii baaxul bu ñu sañoon na Macky Sall wax dëgg yàlla ngir yàlla li lay war suri nañu dimbale ngir yàlla ñu réew mi bëgg nañ avenir bu beneen avenir bu bokkul ak ci jamono bi ñu toll nii Adji Sarr jigéen la keneen jigéen la am na lu nga xamante lu nga leer na le kat da koy fitna comme moo ne am na yeneen dossier maa tegoon suma conc bu ñu sañoon dossier bi ah mu bàyyi affaire bi ay problème ay saar bi mu organiser élection ci jàmm ak salaam Sénégal jëm kanam kenn ku ne dossier soxla dem liggéey li nga war a liggéey loolu la ñuy ñaan yàlla si réew mi ñun ñaanuñu yàlla benn fitna ñun KSC e fii xamuñu sàcc xamuñu jël alalu jàmbur ñàkk jaruñu lay xam buñ juddoo ba léegi kon nag bu ñu nekkee si loolu nag ñun si rek yaa ngi jàng ba am seen diplôme amuñu métier Ziguinchor fii boo xoolee fii dara nekkul Ziguinchor te dara amul Ziguinchor dara fii jeunesse yi bari li ñuy dawal mooy Jakarta moo fi nekk à part Jakarta amul dara waaw kon nag metti na ba si kanamu yàlla te tey nag mënuñu jàkkaarloo waxu ko mais dinañ ko wax lu nga xamante ne bu ñu sañoon dëkk bi am jàmm ñu indi benn fitna bu ñu sañoon gendarmerie suñuy frère lañ suñuy ñi suñuy papa lañu parce que kenn kër goo dugg am na homme de tenue kon nag jaru ko man ma sañoon jaru ko ñoom it nañ xam ne carrément jaru ko ñoom ñu sañoon duñ jàmbarloog ñoom te ñaanuñu ko yàlla waaw mais nag xam nga rek kenn ku nekk ki nga bëgg am nga droit ñoom xëy na Macky Sall tey seen ordre la leen jox ba ñu mën daal suñu kaw ñun tamit ki ñu nga xamante ne moom lañ yaakaar pour ñun tamit suñu avenir am nañ droit protéger ko te proté bu ñu koy protéger nag bañuñ si dara waaw bu dee moom nangu na jël ñu ba ñu jeex tàkk si doomu ay doomu réewam na ko def waaw mais ñun Ousmane Sonko moom actuellement nii ñaan nañ yàlla mu bàyyi ko ci jàmm ak salaam dëkk bi nekk ci jàmm ak salaam ñun xulooñu xeexuñu waaw dëkk bi dal nit ñi dem seen liggéey dox seen soxla bu dee ñaar dërëm lañu am pour ñu daan duggee marché nañ ñu bàyyi suñu ñaar dërëm yooyu ñu bañ a yeewal fitna fitna baaxul gis nga fi Éthiopie gis nga fi Rwanda li fa am yàlla bu mu fi am te li fi nekk mais sénégalais xam ne liggéeyuñu ko li nekk Sénégal jàmm ji fi nekkoon ñoom liggéeyuñu ko nañu xam ne dafa am ñu leen ko bàyyiloon liggéey ko ñu daj lu ne ak tubaab yi yaa ngi si wax ba xeex loolu yëpp ba loolu dañ fi kon nañu xam ne carrément Sénégal li fi nekk du ñoom ñoo ko fi def ay nit a ko fi def kon nit ñooñu buñ toogee tey ñaar leen ñoom war nañ xam ne carrément ah dëkk bi war nañ ko bàyyi waaw man na maa ngi remercier bépp Sénégalais ñun histoire bugguñu ko bugguñu fitna bugguñu dara jàmm ak salaam la fi nekkee Ousmane Sonko bu mu fi nekkee ñu fi nekk soxlañu alalu kenn dañuy ñëw pour protéger ko kese waaw ñun bu ñu sañoon sax duñu sànnante ak ñoom kenn xeer parce que ñun ku ñu sànnatee xeer suñu rak suñu rak suñu frère la wala suñu nijaay la bu ñu sañoon loolu du am mais nag lu mënta ñàkk nag xam nga mais comme yàlla def na fi man ma sañoon daal wax dëgg yàlla mooy que problème ay saar bi ak problème mu lii dañ ko teg suuf kenn xamul ko la yàlla jox réew mi waaw dañuy sabalu rek ku yàlla jox réew mi mais moom bu damay bokk du ma bokk jaru ko fi maa waxoon waxeet déggoon nañ ko fi jaru ko fi oui ou non jaru ko fi nee comme maa leen bokk njaboote ngeen nekk ñëpp ngeen nekkoon benn si man tey maay seen kilifa ñaan naa yàlla ah comme maa ngi ak suma njaboot ñu ngi si jàmm ak salaam man tam bëgg naa leen bàyyi si Sénégal jàmm ak salaam ngeen nekk fekk seen jàmm ay seen njaboot jàmm ak salaam bu ko defee jàmm ñooy ñu ngi sant ñëpp di gërëm waaw